asalaamaaleykum mbokk internet yu Diégo parle foot ah, nuyu naa leen ziar leen ah di wax euh, ngeen di abonné ah activé cloche notification bi ndax vidéo bi ñu bàyyi ko ngeen bokk ci ñi nga xamante ne yéen a ciy njëkk a jot te ngeen aimé vidéo yi te di commenté lu am solo la waa gars yi tey dañuy ñëw ah, encore une fois wax ci mbiru Sadio Mané comme noonu ngeen koy gisee ci photo bi Sadio Mané mi ngi foofee ca Bayern Munich actuellement mën nañu wax lépp yemb na ndaxte moom suñu gaynde bi def na li nga xamante ne mooy visite médicale am saytu nañ yaramam ba lépp jag na moom saajo Mané mi ngi noonu ngeen gis ko mu sol li nga xamante ne mooy tisetu Bayern mi ngi noonu Sadio Mané nekk na Bavarois actuellement nii lenn rek moom moo ci des def na li nga xamante ne mooy visite médicale bi après dañuy dem xaatim contrat bu tolloo ci ñetti at donc moom Sadio après bu jógee ci visite médicale bi dana def fas yéene dem fële xool visiter. fi nga xamante ne mooy centre de formation bu Bayern après bu jugee ci loolu ca suba ga muy alarba ñu ñu daat koy def présentation bu mag a mag a mag mag ndaxte dirigeant yi Bayern dañoo bëgg ibbi alliance Arena muy stade bu Bayern présenté fa Sadio Mané indi seen supporter yi waree la kook suñu gaynde bi l'international sénégalais le champion d'Afrique le ñancoo bi nga xamante ne euh, moo tax waa Bayern dañ ne jour bu mag jour classe mondiale dañ koy defal lu mag te Sadio Mané jour bu mag la jour classe mondiale la moo tax waa Bayern ne dañ koy sagal dañoo fas yéene ibbi li nga xamante ne mooy Allianz Arena ba comme noonu ngeen koy gisee ni ma leen ko waxee mbiree yemb na Sadio Mané day signé na dina signé incha allah ndaxte def na visite médicale am ba lépp yomb na actuellement ma nga sol tiset bu Bayern Munich waa gars yi kon ngeen ñaanal suñu gaynde bii di Sadio Mané day mu doxal foofee ca Bayern na ndaxte Sadio Mané ku ne xam ne ne fulla fayda ak jom lay demee te incha allah dina ko wane foofee ca championnat bu Allemagne kon ñëw leen ci commentaire yi ngeen wax ñu euh, nan ngeen gisee Sadio Mané ak ban numéro ngeen yaakaar la war a jël foofee ca Bayern Munich kon gars yi leen doon côté de abonné activer la cloche jaa ngeen jëf